lan mooy sama itte mooy seet lu sëriñ bi bëgg ma fekk ka si laxasu laxasu liggéey ka ba am si ngërëmam moo tax bi ma sëñ bi waxee ni ma li ma bëgg mooy nga taxaw liggéeyal askan wi kenn dégguma ma yëngatu si politique damay déglu rek lu ma joxoñ la nekk foofu la foofu la sama bëgg-bëgg di jëm fa la sama doole di jëm te damay ñaan nag ngërëmal sëñ Tuubaa jiitu ma sa te ma mujje ak ngërëmal sëñ Tuubaa kon nag ñun taalibe yi ñoo war gën doon exemple si Sénégal exemple bi nan lañ koy defee mooy déglu ndigal jëfe ko suñ dégloo ndigal jëfe ko rek kenn du réer kenn du réer kon nag sama mbokk Sénégal yëpp maa ngi leen wax élection du dara dul tànn ki nga xam ni moom nga bëgg mu jiite la loolu nag mën nga ko defee si jàmm te mën na mujj si jàmm te maa ngi euh, ñaan yàlla def lépp mujj si jàmm. Mm. waaye nag gëm naa ne ak ñaanu sëñ taxaa ak taxawaayu sëñ mun taxaa ak ñaanu sëñ Babacar Sy Mansour ak kilifa diine yëpp fii jàmm rek a fi mën am beleen leen fàtte ni waxu sëñ Cheikh Sidi Maxtaar la wax na ni jàmm rek. keneen ku fi bëgg indi leneen sa kaw lay këpp kon nag nanu wut ñun ñëpp jàmm na ñëpp doxal jàmm jàmm ji nag du du benn parti rek ka moom de jàmm ji ñëpp a ko moom xam nga jàmm du benn parti rek su kii di wut jàmm kii di wut ay ay day am waaye su fekkee ne nag ñëpp wutadoo jàmm na ñëpp wutadoo jàmm na pouvoir wut jàmm na opposition wut jàmm na société civile wut jàmm na sénégalais bi nga xam ne bokkul fenn boppam la gëm xalaatam la gëm na wut jàmm mm. suñu wutee jàmm rek jàmm sax Sénégal te jàmm nag mooy taaru Sénégal Sénégal lu jiitu muy am pétrole wala or lan lan ko daan ñeewee mooy jàmm ji fi sax kon jàmm jooju nan ko sàmm suñ ko sàmmee ëllëg daanu mën jariñu Sénégal rawatina nag sunu doom yi nga xam ni ñoo yor ëllëg daanu gën mën jëriñoo Sénégal kon jërë ngeen jëf